juróom fukk ak ñett yonent yàlla Ilias asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbette ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gëstu woon nanu ci nettalib suleymaan doomu yonent yàlla daawuda gisoon nanu ni yàlla jagleele suleymaan xel ak ràññee gu rëy ci jamonoy buur bi suleymaan yerusalem moo doon dëkk bi gënoon a rafet ci àddina sépp wante ci lépp li suleymaan sampoon ca yerusalem amul woon dara lu ci sut kërug yàlla aji sax ji te mu tabaxoon ko ngir mu wuutu tàntu màggalukaay bi musa ak bànni israel defaroon ca màndig ma mbind mi day nettali ni buur bi suleymaan jëfandikoo woon daanaka ñaari téeméeri junni liggéeykat diirub juróom ñaari at ngir tabax màggalukaay bu rafet boobu ba tey mënees na gis ca yerusalem xeer yu rëy ya lalu woon ca fondamaab kër yàlla ga suleymaan tabaxoon bi këru yàlla ga pare nag sëriñ si rendi nañu ay junni xar ak yëkk yu doon misaal ramukat bi naroon a ñëw tuur deretam ju tedd ji ngir bàkkarkat yi noonu lañu jébbale yàlla kër gi ñu tabaxoon ngir turam gannaaw ba ñu rendee mala yooyu te lakk leen ci rendkaayu xànjar bi nekk fa kanam kër yàlla ga sëriñ si daldi jël gaalu kóllëre gi nekkoon ci tàntu magalukaay ba ñu dugal ko ci béréb bu sell ba sell ci këru yàlla gu bees ga noonu bi sëriñ si génnee bërëb bu sell baa sell ci saasi niiru ndamu aji sax ji fees bërëb bu sell ba sell ba ca kër yàlla ga noonu gis nanu ne ni ndamu yàlla feese woon bërëb bu sell ba sell ci tantu màggalukaay ba muusa ak bànni israel defaroon ca màndig ma noonu itam la ndamu yàlla feese woon bërëb bu sell ba sell ci màggalukaay bi suleymaan tabaxoon ca yerusalem ci lu jëm ci li des ci dund Suleymaan nag amunu jotu wax ci lépp waaye mën ngeen xam rekk ne mu mujjug nguuram melul woon ni ndorte la déglu leen li bind ci téereb buur yi saar fukk ak benn dinanu gisaat ne kàddug yàlla gu sell gi du nëbb bàkkaari yonent yi sax mbind mi nee na waaye buur suleymaan denc na jigéeni doxandem yu bare noonu ci magug suleymaan ay jabaram jañ xolam ci yeneeni yàlla ba xolam bépp nekkatul ci aji sax ji yàllam ni ko xolu baayam daawuda nekke woon noonu suleymaan tabax ca tund wa féete penku yerusalem ay màggalukaay yu kawe ngir yàllay jabari doxandem yépp ñuy taal cuuraay di rendil sarax seeni yàlla bi mu ko aji sax ji mere suleymaan ndax li mu dëddu kàddug yàlla aji dund ju dëggu ji noonu aji sax ji ne suleymaan ndegam def nga loolu te sàmmoo sama kóllëre ak samay tëralin yi ma jagleel dinaa seddale sa nguur ñaar noonu mbind mi daf nuy nettali ne gannaaw ba suleymaan deewee xeetu israel doon nañu xuloo ngir xëccoo nguur gi ci seen biir noonu la fukki giiri bani israel ya ak ñaar yi soqiko ci doom doomi yanqoba xajali ko nekk ñaar ni ko yàlla waxe woon suleymaan kon nekkatuñu woon wenn xeet rek waaye léegi ñaari xeet lañu woon maanaam israel ak yuda fukki giiri israel ya nekk ca bëj gànnaaru réew ma booloo nekk nguuru israel te ñaari giir yi nekk ci bëj saalumu réew ma booloo nekk nguuru yuda mbind mi day wone ni ñaari xeet yooyu ame woon buur yu bare lu ëpp ci buuri israel ak yuda ay buur yu bon lañu woon ndaxte dëddu nañu yàlla aji sax ji di topp diiney xeet yi leen wër ci biir buur israel yooyu yépp amoon na ci kenn ku gën a bon te gën a soxor yeneen buur yépp ndax xam ngeen ku mu doon mooy buur bi akaab akaab moo di juróom ñetteelu buur gannaaw suleymaan ci mbirum akaab mbind mi neena buur bi akaab nag defoon na lu ñaaw ci kanamu aji sax ji ba raw ñépp ñi ko jiiti woon jël jabar sesabel mi bañ kàddug aji sax ji te bi ko loolu doyatul akaab tabaxoon na ci israel ay kër ngir turubaal maanaam ki xeet yi leen wër daan teg yàlla noonu akaab merloo aji sax ji ci li mu doon jiite bani israel ñuy topp diinay neen waaye ci jamono jooju dafa amoon jenn waay ci israel ju àndoon ak yàlla ilias la tuddoon am bés nag yàlla yónni ilias ci buur bi akaab noonu ilias ne akaab giñ naa ci aji sax ji dund di yàllay israel ji may jaamu ci at yi du taw du lay lu dul ci sama kàddu naka noonu diirub ñetti at ak genn wàll tawul woon ci réewum israel gépp xiif ba metti woon na lool ca réew ma kon ci sar fukk ak juróom ñett bi loolu amee kàddug aji sax ji wàcc ci ilias ci ñetteelu atum maral ma ne ko demal taxaw ci kanamu akab te dina wàcce taw ci kaw suuf si noonu iliyas dem teewi ci kanam akab naka akab di seen iliyas mu ne ko ndax yow du yaa xëpp musiba ci israel iliyas tontu ko ne mukk xëppuma musiba ci israel yow kay ak sa kër baay ndax yéena bàyyi ndigali aji sax ji te ngeen di topp baal léegi nag dajaleel israel gépp ci sama wet ca tundu karmel ak ñenti téeméeri yonent yu baal ak juróom fukk bi loolu amee akab yónnee ay ndaw ci bànni israel gépp te mu dajale yonent yi ca tundu karmel noonu ilias ñëw ba jege mbooloo ma mépp ne ba kañ ngeen di bàyyee bajantu ci ñaari wet yi su fekkee ne aji sax ji mooy yàlla topp leen ko su fekkee ne baal la topp leen ko mbooloo ma baña tontu dara noonu iliyas newaat mbooloo ma man rek ma des ci yonenti aji sax ji te am na fi ñeenti téeméeri yonent ak juróom fukk yu baal kon nag nañu nu jox ñaar yëkk nañu tànn ngir seen bopp wenn ci yëkk yi te nañu ko dagg ay dog ba noppi ñu teg ci kaw matt mi bañ cee def safara te man itam dinaa defar weneen yëkk wi teg ko ci kaw matt mi te duma ci def safara kanaaw loolu ngeen ñaan seen yàlla te man dinaa ñaan aji sax ji yàlla ji wuyu jaare ci safara kooku mooy yàlla te mbooloo ma mépp tontu naan baax na Ilias ne yonenti baal yi tànn leen wenn ci yëkk yi jëkk leen koo defar ndax yéen a gën a bare te ngeen ñaan ci seen turi yàlla yi waaye bu leen ci def safara noonu yonenti baal jël yëkk wa ñu leen jox defar ko gannaaw ga ñuy ñaan baal dale ca suba ba ci digg bëccëg naan baal wuyunu waaye dégguñu genn kàddu wala genn tontu te ñuy bajantu di wër rendikaay ba ñu defaroon ca diggu bëccëg ilias di leen naqaral ne leen yuuxu leen ca kaw waay ndegam mooy yàlla xanaa dafay waxtaan wala dafa jàpp boog mbaa mu tukki wala xanaa muy nelaw te dina yeewu noonu ñuy yuuxu bu kawe te ci seen aada ñuy jamu ak jaasi ak xeej ba deret ji tuuru ci seen kaw bi diggu bëccëg weesoo ñuy daanu gàngari ba waxtu bi ñuy jébbale saraxus ngoon waaye amul kenn kàddu kenn wuyuwul kenn faalewu leen Ilias ne mbooloo ma mépp jege si leen ma mbooloo mépp jege ko noonu Ilias defaraat rendikaay bu aji sax ji bi ñu daaneeloon Ilias jël fukki doj ak ñaar ni ca lim bu giiri doomi Yanqooba mi aji sax ji soppi tur wa ne ko Israel mooy doon saw tur Ilias defaraat ak doj jooyu rendikaay ngir aji sax ji mu gas ca la wër rendikaay ba kàmb gu mëna def lu tollu ci ñaari mata mu jekkal matt mi dagg yëkk wa ay dog ba noppi mu teg ko ca kaw matt ma gannaaw loolu mu ne duy leen ñeenti njaqi ndox tuur leen ci kaw sarax si ñuy lakk ak ci matt mi mu dellu ne leen def leen ko ñaari yoon ñu def ko ñaari yoon mu ne leen def leen ñetti yoon ñu def ko ñetti yoon ndox ma wal wër ba te ñu feesal kàmb ga sax ak ndox ca waxtu wa ñuy jébbale saraxus ngoon ilias yonent bi dox ca kanam naan aji sax ji yàllay ibrahima isaaxa ak israel nañu xam tey jii yaay yàlla ci israel te may sab jaam def naa yëf yi ci sa kàddu tontu ma aji sax ji tontu ngir mbooloo mi xam ne yow aji sax ji yaa yàlla te yow yaay delloo ci seeni xol noonu safaras aji sax ji ne milip daanu lakk sarax si matt mi doj ji ak suuf si naan ndox ma nekkoon ca kàmb ga bi mbooloo ma gisee loolu ñu daanu dëpp seen jë ci suuf te naan aji sax ji mooy yàlla aji sax ji mooy yàlla noonu Ilias ne leen jàpp leen yonenti baal yi bu kenn ci ñoom raw ñu jàpp leen Ilias yóbbu leen ca dawle ju kison foofa mu rendi leen fa bi amee Ilias ne Akab yéegal lekk te naan ndaxte riirum tawa ngi dëktu ak ab yéeg ngir lekk ak naan waaye Elias yéeg ca njombaxtalu tundu karmel ngir ñaan yàlla noonu ci diir bu gàtt asamaan si lëndëm ak i ngelaw li jóg te mu daldi am taw bu metti ci lu wóor nettali bu doy waar bii dafa fees ak ndamu yàlla ak kàttanam te soxlawul sax nu ci teg wax waaye bala nuy tàggoo tey xëy na mën nanu fàttaliku rekk li yonent yàlla Ilias waxoon euh, bani Israël laata muy dëkk ñeenti téeméeri yonent yu dul dëgg ak juróom fukk yu baal yooya mu ne ba kañ ngeen di bàyyee bajantu ci ñaari wet yi su fekkee ne aji sax ji mooy yàlla topp leen ko su fekkee ne baal ko ci bu jëkk bànni israel tontuwuñu woon dara wante ba ñu gisee ni yàlla aji sax ji nangoo ñaanu iliyas ba tawloo safara ci rendikaayam mbooloo mépp daanu dëpp seen kanam ci suuf te naan aji sax ji mooy yàlla aji sax ji mooy yàlla noonu la yonent yàlla iliyas weere diiney baal ju dul dëgg ci kanam ñépp te delloo ci xoli bànni Israël ci aji sax ji seen yàlla ci benn bés lu taxoon yàlla wuyu Ilias bi mu ko ñaane te faalewul ñaani yonenti baal yi ndaxte Ilias gëmoon na kàddug yàlla aji dund ji waaye yonenti baal yi seen aaday diine dong lañu gëmoon seen ngëm sukkandikuwul woon ci kàddug yàlla aji dund ji noonu gis nanu ni yonenti yàlla iliyas sante woon bani israel te ñu tànn yàlla aji sax ji walla diiney baal dëgg walla fen leer gi walla lëndëm gi waxu yàlla ju dëggu ji walla waxi diine yu sësul fenn xëy na am na kuy déglu tey te wara tontu laaju yonent yàlla ilias bii di ba kañ nga di bàyyee bajantu ci ñaari wet yi ba ngay bàyyee bajantu ci diggante kàddu yàlla gu dëggu gi ak aaday yu nit tëral te sësul fenn mbind mi nee na kenn mënula jaamoondoo ñaari sang faaw nga bañ kii bëgg ki ci des walla nga jàpp ci kenn ki xepp ki ci des mënuleena boole jaamu yàlla ak alal mënuleena boole jaamu yàlla aji sax ji ak diiney neen ba kañ ngeen di bàyyee bajantu ci ñaari wet yi mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi nu ngi leen di jox dox daje njàng mi ñëw ndaxte bu soobe yàlla ñu jëm kanam ci mbind yonent yi te gës gëslutu ci nettali bu doy waar ci mbirum benn yonent bu defoon ñetti fan ci biir jën wu rëy wa ndax xam nga ban yonent la yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yonent yàlla Ilias waxoon bànni Israël bi mu naan ba kañ ngeen di bàyyee bajantu ci ñaari wet yi su fekkee ne aji sax ji mooy yàlla topp leen ko